man wax dëgg yàlla dama jàpp ne bu ma dee wax ci moom sax dama koy may doole te man wax dëgg yàlla gisuma njariñ lu tax ma war a wax ci moom parce que ñun ñëpp mën nañoo d'accord ni wax dëgg yàlla waajooñ nag du suñu adversaire parce que koo xam ne déglu leen li ma leen di wax de parce que acharnement mooy singli mooy singli du loolu nga wax singli waaw mais booy singli nit kay day am lu mu la yàqal yow koo xam ne élection yi mu wax yëpp ni ñu ko demal wuti parrainage mënta am parrainage élection yi mu bëggoon a dem yëpp mënta am parrainage mais ku am mënta am parrainage te ña amoon parenage déglu leen li ma leen di wax de pour wan leen ni kooku il ne représente absolument rien maanaam moom dañuy dem élection candidat yëpp départandoo di wut parrainage moom mënta am parrainage mais même ña amoon parenage dañoo dem am zéro virgule kon moom mu am mënta am parenage bu demoon lu muy am est-ce que dégg ngeen wax ce que dégg ngeen wax dama ne dañuy dem élection moom muy dem wuti parrainage ak i moroomam mënta am parrainage ci élection yu bari mësta bokk élection parce que parrainage la mënta jàll mais ña mënoon a jàll parenage bañ demee élection zéro virgule lañu am waa moom mi mënta jàll parrainage bu demoon élection kon lu muy am kooku représenté wu lu bëri ba ñuy acharné wu ci moom yàqaluñu dara parce que il ne représente absolument rien man bi ñu ko jàppee mu nekk Tamba mu nekk Kolda man damaa toog di ñaan Tamba la nekkoon may ñaan may ñaan pour ñu bàyyi xam nga lu doon bañ comme moom élection yi fi am yépp day wuti naa du am ba ca fin ba du bokk mu wër di wax fépp ni moom bu ñu ko bàyyoon mu bokk day jàll day day day day day gañe léegi élection yi bu ñëw rek bu ñu ko nee wutal parrainage du am ba du bokk bii élection bu ñu ko jàppee kon dañ koy may prétexte moo taxoon man ma bëgg mu bokk alhamdulilah bokk na non seulement bokk na waaye ma nga ca ab coalition sax boo xam si moom ñeneen a fa nekk kon coalition war naa am doole maanaam bu dee am na doole ak ñeneen ñi ñëw ñëpp ñu boole seen doole kon coalition boobu élection yi ñu jëm dafa war a wane doole ndaxte moom ma nga fa mais nag leen ba le 17 novembre incha allah ci ngeen di xam ne lépp dëgg la nga waa ji doo dara et dégg naa ko démb ci conférence de presse am moom li mu war a def mooy bu amee ay mbokk moom it dañ ko war a wax ni alal jooju muy wax ni am na ko depuis des années et des années na ci na ci comp dem wuti formation dem ñu jàngalaat ko mu jàngaat tuuti yokk xam-xam maanaam xam-xamam moo néew boo ko déggee muy wax ci niveau bi muy waxee da ngay xam ni kii ndeysaan niveau bi mu nekk dafa faible démb maa ngi ko dégg mu naan un pôle d'avocat on di dit pas un pôle d'avocats avocat du nu pôle c'est un pool un pool d'avocats mu ne un pôle d'avocats xool c'est-à-dire xàmmeewul koo xam ne xàmmeewoo pôle ak pool maanaam kooku niveau boobu ñun ñu taxaw naan dañ koy tontu xam nga loolu affaire yabaate la ko voilà donc euh, boo bëggee dëgg-dëgg daal il ne représente absolument rien il ne représente absolument rien il fait de l'agitation xam nga moom dafa jàpp ni Ousmane Sonko li ko may doole mooy leen ko doon tëj tijj xam nga lu fàtte Ousmane sonk du looloo ko may doole de xam Ousmane Sonko lu ko may doole du tëj ak tijj bi au contraire loolu dafa ñëw firndeel li Sénégalais gëm ci moom Ousmane Sonko daf nuy bërët ci politique wane ne man sama politique dama koy lal ci xam-xam damay bind ay livres damay dénoncer ay situations. nga noppi di joxe ay firnde di dem ci télé yi di wane ne il est compétent léegi sénégalais di ko identifier di wax ne mais regardez ce jeune la mais il est bon maanaam dafa wane boppam par rapport à sa compétence régime bi gis ni kii non seulement mi ngi wane compétence mais mi ngi wane éthique mi ngi wane mi ngi wane patriotisme ñoo ñu ni kii bu ñu ko bàyyee mu dem nar na convaincre peuple bi kon nañ ko commencé kar nañ ko commencé kar pour du dem kar yooyu ñu ko doon kar nag pour du dem muy rëcc di di di di mbëkkanteeg ñoom senegal yi di may kii ñun nañ ko dooleel may may ko doole nañ topp ci ginnaawam mais Bougane moom dañu bëreet ak jaayu reewande moom jaayu leneen de dañu bëreet di jaay reewande kon nag kooku du suñu adversaire c'est-à-dire koy digal daal nee ko yoon wi Ousmane Sonko jaar ba yegg fi mu àgg nii wuute na lool ak li muy def waaw sol say chemise yóbbu la comme ni ko Sonko daan defe ak sóor sa euh, casquette viser ko ba mu saf di sonko sonkul ku yaakaar ne loolu moo lay may doole da ngay nax sa bopp dama ni ku koy digal nee ko na bàyyi sonko sonkolu bi te tracé yoonu boppam dem mais tant que mi ngi sonko sonkolu lu sonko def mu jéem ko def dama la du dem lii mooy dëgg ñun on a rien contre lui attention nous sommes en démocratie ñun li ñu bëgg et sonko laa di sonko dafa bëgg opposition bu am doole na dem opposé wu ñu bàyyi ko mu opposé wu mu demandé à à marché demandé à faire des sitting dem woo ay mbooloom dégg naa ko mu naan bi ma génnee mbooloo mu bari di ma tàllalay loxo ban mbooloo mu bari ko tàllal loxo bi mu génnee ci prison bi mbooloo mu bari may tàllal loxo ban mbooloo xanaa dans sa tête donc amul benn mbooloo bu ko tàllal loxo moom li muy rêvé mooy li Ousmane Sonko amoon ci opposition bi loolu lay rêvé loolu nag ku koy digal. nee ko liggéey moo koy maye daa am jaar-jaar bu Ousmane am moo tax mu amoon mbooloo moom kon su bëggee am loolu moom nee leen ko mu dem liggéey te bàyyi reewande gi reewandeem gi jëmul fen ci kaso bu dong lay mujj. merci beaucoup monsieur Dame président. waay waay waay. may may may ko may ko fële waay may ko rek dina dina ñëw ci yëpp incha allah

waaye réew mi ñu leen dénk mënu leen ko dénk ak wax yi nga xam ne moom leen di wax yéenay nekk au pouvoir mais en même temps yéen a nekk ci opposition mais est-ce que mën ngeen bàyyi wax ci dëgg liggéey troisième question bi mooy ci wàllu transhumance ndax gis nañu Doura Baldé ak Mame Boye Diao ak Doura Baldé sax lu nekk waxoon ngeen sama lan ngeen mën a nangu tey jii ñu mel ni ñooñu bàyyeekoo ci xalaat yi nga xam ne ñoom fañ nekkoon ci président Macky Sall ndax nekk kon ñu tontu boobu ma première question bi nee na Dakar Arena Pastef loué wu ko du looloo loolu la sénégalais yenn yi wax effectivement man bi may nekk chin coo loolu dégg naa ko ñu bind ko ci réseau sociaux yi wax ne Dakar Arena dañ koo aal waa Pastef parce que Dakar Arena euh, waa Sojik dañ koy loué mais loué wuñ ko Pastef xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne gars yi lu leen neex la ñuy wax ci loo xam ne ci seen xalaati bopp rek lañ koy wax ci seen waxi bopp yoo xam ne amul fenn fu mu ko teg fa ma toog à l'époque ma ni regarde-moi ces mensonges réew mi dafa soppeeku rupture moo fi am fii amul kenn koo xam ne man maay directeur général bu SOGIP SOGIP mooy gérer l'ensemble des infrastructures yi ma leen wax sànq ni mën naa andi retour sur investissement te Dakar Arena daf ci bokk parce que xaalis bari la ci état bu Sénégal def Dakar Arena boobu képp kuy sénégalais yow ak man ak président Ousmane Sonko ak euh, ak premier ministre Ousmane Sonko président de Pastef et le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak koo mën a doon ñun ñëpp ñoo ci yem parce que alalu Sénégal lañ ko tabax. kon ku taxaw ba koo jël da ngay ñëw ñu wax la yan condition lañ koy joxe événement yëpp bokkul niñ koy joxe bi biñ ko soxlaa danoo jaar fi ñëpp war a jaar man heureusement parce que man tout ce qui est mise euh, exploitation tout ce qui location des infrastructures man duma ci dugg dafa am directeur bu ko yore la directrice de lexploitation exploitation moom ngay adressé correspondance ne ko damaa soxla telle infrastructure muy centre des expositions muy Dakar Arena muy le marché d'intérêt national mu la gare des gros porteurs loo ci soxla danga naan ko lii laa soxla bind ko bu dee yi SEMIC di gérer SEMIC moo koy gérer bu dee ñun li nga xam si ñun ñoo koy gérer ñun euh, waa SOGIP directement ñu à travers la direction moom ngay bind mu jox la ko man dugguma ci sax far parce que tout est normé dafa am ay normes pour ñu jox la ko par mètre la lañ koy loué. ñu calculer la par rapport ak nombre de jours yi nga bëgg ak temps bi nga fa war a def ak la nga fa war a def fa ñëpp di jaar fa la waa Pastef jaar ñu loué leen dañ leen koo loué dañ leen a loué infrastructure de président de Pastef Ousmane Sonko am na ko ma rapporté ni nee na seen arena bi dafa cher mais dafa fay firnde baa ngi nii contrat baa ngi nii dinaa ci ñëw contrat baa ngi nii contrat bi nga xam ni moom lañ leen luwee dakaar Arena ca laa jëm bu leen yàkkam le contrat est là sama paree dama leen jox facture bu leen yàkkamti daam mbooj la ay leer yaa ngi may dégg contrat baa ngi nii mën naa leen ko jox ngeen photocopie contrat bi nga xam ni moom la Sojib loué Dakar Arena waa Pastef est-ce que leer na contrat baa ngi nii man euh, mi ngi nii comme man dama demoon mission gis ngeen ko ça a signé par le secrétaire général